di jaajëfe bu baax teg ci am na benn benn sunu benn compagnie bu bees bu ñu ubbi ci banlieue bi. waaw mu ngi nekk Fass mbaaw Fass Mbao mu ngi tudd Bay Dundee. Bay Dundee waaw initiative la boo xamante ni Salif jàlloo moom moo ko commencé. foofu Salif ku baax la Salif yegsil. jël Salif yegsil dugg sil jël jël xale yi nekk ci banlieue bi yëpp. mbokk yi kontaan lañ ci yéen Salif mi ngi nii. Eh, nekk ndaanaan moom tamit ndeysaan nekkul. ku ñuy présenté ku ne gis na ko ci Africa Ndigal xam nga mu bokk ci yu bari clip yee kon nag. saalif li Ibou Biaye yi wax muy bay dundee nekk benn slogan bu mu souligné léegi dañoo bëgg rek nga mosal ñu ci tuuti balaa ñuy tëj ndax yow it bëgg na balaa ngaa dem wala foo mënti dem yaay Dip TV seet si la ñu def ak yow émission Salif maa ngi lay nuyu. waaw ah, Pape Mbaye avant tout d'abord maa ngi lay fay. maa ngi nuyu ñëpp téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu waa Yadi TV. loo liggéey rek tamit. ngay fayal waaw yàlla dafa def ñin dañoo yàgg nekk ci aar bi tamit. def ay recherche yu baree baree baree bari pour comprendre lan mooy sabar. Hmm. waaw parce que ñun sabar daf ñoo jaral lu ne. sabar daf ñoo dimbali sabar bi daf ñoo help lu bari bari ci life. waaw tax na ñun dund dundatuñu lu baree bari luñ naroon a dund. waaw ah. waaw bay dundee. waaw lu tax bay dundee. waaw ñun ay xale lañ nekk ci banlieue bi. waaw xale yi ñu ngi si banlieue bi am talent mais gisuñu ku leen motiver. waaw parce que motivation dafa baax tamit ki nga xamante ne si bépp métier la. nekkul danseur bi wala danseuse bi la wala percussionniste bi déedéet artiste la ñuy wax. art képp kuy dund art rek da nga laaj chaque jour motivation tamit ak di jaayante si sa métier. waa parce que bu nekkee aar bi ngay dund. chaque jour rek war nga xool yoo xamante ni mënoo ko nga dem génn dem jéem a def ay recherche pour jéem yokk sa capacité yokk sa expérience sax dimbali ñi nga xamante ni ñu ngi sa ginnaaw waaw léegi bay dundee dafa am booy yaa ngi si banlieue bi ñu ngi see bongo ñi ñu ngi feeti ñii ñu ngi répété nii waaw mais faaw ñu am ñu leen dimbali ñun yàlla dimbali nañ tamit ba bay dundee jaar si ñun mm-hmm. waaw mais nekku ñun ñoo moom bay dundee déedéet ñun moomuñu bay dundee pour ñëpp la waaw képp ki nga xamante ne nii am nga expérience wala waaw ñu ngi la ci woo ci biir wala bëgg nga jàppale tamit jeunes yi nga xamante ne ñu ngi si ginnaaw bëgg nañ aar bi waaye comprendre ñu tamit bëgg nañ képp ku ci mën a jàpp rek te yàlla tax nga ñëw tamit bay dundee jàppale ñi waaw parce que fee xale yaa ngi fa lépp luñ naroon waaw bongo yi ñu doon jël tamit di dem si programme yi loolu mënu ñax mais am na neneen ak neneen ak neneen tamit luñ ko war a defee loo xamante ne ku nekk gis sa bopp parce que aar bi dafa yaatu parce que boo toogee ne man si benn instrument bi laayam wala si benn bi fecc bi laayam de da nga war a def ay recherche laal fii laal fii laal fii mais di nga laal métier dafa war a mokk. waaw surtout fecc léegi bi. waaw parce que fecckat yi bëri nañ. Mm-hmm. waaw ñii fii la ñuy fete ñii fii la ñuy fete mais dañoo war a jàng pecc mi ba mu leer nañu. loolu ñor nañu ma de. fecc mi moom dafa war di leer. surtout dafa war di leer. surtout waaw da ngay wër daal. dëgg la fecc dafa war a ñor gis nga ni tëgg bi di ñore ñuy teg pin ak mbax ak ce nga xamante ne nii fii ñu ngi koy teg si temps bi <laughs> yow tëggkat bi ak fecckat bi tamit parce que tëgg ak fecc dañoo war a communiquer chaque jour. waaw communication bi nga xamante ne la benn wéeg la ñuy jaar ñoom kenn du wàccee. waaw saga man mënuma xool tamit mënuñu bokk fi ñuy jëm. dëgg la loolu dëgg la kon faa ñuy jàppalante tamit. nit ñi fecc xoolaat fecc mi bu baax raxasaat fecc mii bu baax a baax waaw góor ñi. ñi fecci feccum góor jigéen ñi fecci feccum jigéen kontaan nañu Salif Diallo kontaan nañ ci li nga wax trop Pambay kontaan naa ci jéen kontaan naa sama xarit Ibou bi yaay waaw di kontaan ci ñëpp nag di kontaan ci soxnaam kontaan ñi ma fi fekk ñëpp nag waaw yaa di TV rek ca kanam nag bëggee yaay di TV. waaw ca kaw ca kanam kontaan nañ trop.